gëj nañu gisee boobaak léegi dafa mel ni li may wax jàllul wala mi ngi dem Chérif danga may bàyyi nag ma eggale émission bi parce que tamit nit mënul wax fii nga bëgg wax ak man ma bëgg laa toon du noonu nañ dem seetaan élément un jour au Sénégal un jour dans le monde dellu siwaat léegi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre ci atum 1999 ci lan tabb El Hadji Amadou Diaba mu nekk sportif du siècle ci cérémonie bu amoon fii ci ndakaaru li ko waral moom mooy athlète sénégalais bu njëkk am médaille ci ay jeux olympiques rawatina ci JO yu amoon ca Séoul ca Corée du Sud ci atum 1988 mu nekk ñaareel ci course bi ñu doon wax 100 mètres ñaar fukk ak décembre 2021 Fiti ci Sénégal ñu daal fi détecter ay cas coronavirus yu bari liko waral moy ben variant bu wax Omicron. ñaar fukki fan ak décembre ci atum 2014 Hissène Abre avocat bi di maître Elas Diouf mim jigné dafa lëkkaloon ak nonam di Idriss Déby ñaar fukki fan ak décembre 2022 bisu tiis ci football génn Adouna, le roi Pelé footballeur brésilien ñett yoon mu nekk champion du monde 1958 62 ak 70. ñaar fan ak juróom décembre ci 2013 ki it lol lool ci dawal auto muy formule 1 doomu Allemagne Michael Schumacher am ay jafé jafé ci wel gu yaramam li waral moy accident bi mu amoon ca ski ñu transféré ko ci hélicoptère ci hôpital bu Grenoble wa hôpital bi ne kam critique na lol. ndax traumatisme crânien sévère bu ànd ak hémorragie cérébrale moko dal. ñu taxaw ci datu ñaar fukk ak juróom-ñeent ci weer décembre ci atum 2001 bis boobu la ñu jébbal Léopold Sédar Senghor sunu borom ci armée nekk ca bel bu Ndakaaru ginnaaw messe ba amoon ca cathédrale du souvenir africain ñu ko wax Notre-Dame des Victoires ka jiite woon mees bi di Théodore Adrien Sarr moom monseigneur nekkoon archevêque bu Ndakaaru ci teewaayu soxnaam di Colette sengoor ak Abdou Diouf mi ko wuutu woon ci bopp réew mi laaj bi samp mooy lan moo dox réeroo amoon ci diggante sengoor ak Abdou Diouf bi mu ko joxee leng yi dem tontu lii ak Pape Amadou Fall di journaliste analyste politique dundu parti socialiste ne Abdou Diouf ba mu euh, jëlee nguur gi ci ki nga xam ne moom mooy Léopold Sédar Senghor moom moo doon premier ministre am 1970 ba euh, ki nga xam ne moom mooy euh, Senghor di bàyyi am na ay xeex yoo xam ne yu metti la xeex yooyu nag ñu ràññee ci ne ku mel ni ki nga xam ne moom mooy Amadou Karim Gueye wala boog nga jël góor gu mel ni. Euh, ki nga xam ne moom mooy Amadou Cissé Dia wala nga tudd sax euh, keneen ko xam ne ci wàll wàllu nga xam ne moom mooy taxawaay bi ràññee nañ ko muy Magatte Lô ñii euh, Abdou Diouf daal di taxaw rek génne leen ci li nga xam ne moom mooy nguur gi booletu nen ci dara booy xool ci wàll wàllu nga xam ne moom mooy delloo njukkal walla bokk bàyyi xel ak xalaat Euh, ci koom xam ne daf la tàggat ci lu bari ci wàllu politique muy Léopold Sédar Senghor Abdou Diouf de dafa mel ni bëggoon naa wone boppam gëm ne ki nga xam ne moom mooy Senghor du moo ko mën a yóbbu ci lenn wala moo ko mën a digal ci lenn ba tax na nekk na ci nguur gi ba soxna Senghor bi muy génn àdduna euh, ca la ñu daje woon euh, ci fi nga xam ne moom mooy cimetière ba ñu jàpp nag ne euh, diggante Senghor ak Abdou Diouf bu fekkee dañ ne euh, Abdou Diouf dafa trahé ki nga xam ne moom mooy Léopold Sédar Senghor mun nañ ne waaw mun nañ ne waaw de ndax euh, ci wàllu wi nga xam ne bu dundin ak doxalin Diouf delloowul woon njukkal ki nga xam ne moom mooy Léopold Sédar Senghor du benn yoon nag ci wàllu wi nga xam ne moom mooy taxawaay lii daal war nañ ko mën a jàpp ci li nga xam ne moom mooy bisub tey bi Les autres avaient un régime présidentiel. Je pense que ça, ça a pu jouer un rôle. Parce que le président du Conseil euh, avait beaucoup de pouvoir. Le président de la République n'en était pas dépourvu non plus. Euh, ce qui explique d'ailleurs quelques ambiguïtés et quelques malentendus président Abdou Diouf euh, Chérif euh, mu dellusiwaat ci malentendu euh, menes nako ko nonou noonu Chérif yaa def voix bi ñu jéggalu ci njuumte gi sank lo nga ma bëggoon wax n'est-ce pas légui ñu dem nak ci mm, li nga xamné moy président Abdou Diouf ak kàddu yi nga xamné yëkëti nako aju ci sen différent ñom ñaar moom ak président Senghor. xëy na ci mémoire mooy ni mu demee la parce que yéen ngi wax euh, dernier discours bi Senghor def. Mm. parce que Senghor ni naan article bi mu euh, gi dafa jox Abdou a amal benn élection. Mm. demee nag au début am na ñu fi fekkoon yoo xamante

loolu Abdou Diouf xëy na nangu ko woon parce que nguur tamit comme ni ñu waxee kenn du ko able kenn du ko ndénkaane ba gis nañ ko ci réew yi nga xamante a moom moo tax donc amoon na également fa li nga xamante mooy ci Angola donc ñi wax ne Abdou Diouf dafa trahir bon est-ce que trahison la parce que mm. tamit comme ni ñu waxee nguur moom buñ la ko joxee c'est pour que nga daal

ñu gaaw rapidement dem ci xibaar yi eh, ci gàttal ak eh, Cheikh Tidiane Diaw